salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu kontaan bu baax a baax di ànd ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni ngi tudd gise ak alors émission bi nag euh, dañuy faral di dalal ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàll wi ñu taamu ngir waxtaane ko mais également émission la boo xamante ni dafay waxtaane actualité alors tey ñu dalal fi ki nga xamante ni euh, mi ngi tudd Mbaye Sène l'international di euh, journaliste di liggéey télé bi nga xamante ni mi ngi tudd DTV mais également yor site d'information bi nga xamante ni mi ngi tudd Sport Inter alors nekkoon candidat ni moom mooy mooy Mermoz Sacré-Cœur euh, lan moo tax mu renoncé euh, ci candidat boobu noonu mu bëggoon maire bi euh, loolu yëpp dinañ ko waxtaane dañuy waxtaane également sport politique naturellement mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dama koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yu Dakar Net ñu ñëw ci waxtaan bi Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar. Ousmane maa ngi lay fay di nuyu aussi les internautes qui suivent li nga xam te ne moom mooy Dakar Net rawatina émission bi nga xam te ne mooy gisee ak. gisee ak ak Ousmane. Mm-hmm. di kontaan. di rafetlu aussi dalal bi ak invitation bi. Mhm. alors comme euh, ni ma ko waxee woon ah dañuy dañuy ubbee waxtaan bi ak politique déjà euh, ban gis-gis nga am ci président Macky Sall ñi nga xamante ni ñoom la tobb ci gox yi pour ñu euh, représenter li nga xam ne mooy benn bokk yaakaar mu jiw coow lu bay d'ailleurs donc ban gis-gis nga ci am. bon xam nga gis-gisu ci am c'est c'est gis-gisu normal la rek peut-être moom moo xam li nga xamante ne bi moom lay def parce que nag moom mooy le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar euh, moom mooy tànn ña ko neex ak ñoom yaakaar ne peut-être war nañoo mën a gañ seeni i gox li nga xamante ne bii aussi euh, seetlu nañ ko ci mooy mm. euh, bëri na problème bëri na ay frustration mm. bëri na ay ay ay mbir yoo xamante ne bii nii ñii dañ leen di tabb ñii duñ leen tabb ñii dañ leen tab duñ leen tabb. Mhm. général daal ay problème yu bëree bare bëri mais léegi lenn affaire xam naa ko ci. Mhm. képp koo xamante ne bii nii dem nga ci élection yi. Mhm. te leer na la leer ni euh, mënuloo gagné. dama jàpp ni bés boo bés boo bés boo bés boo indee concurrence dama ñàkk ni dina rëq sa ndigg rawatina la su la joxee nag li nga xam ne moom mooy benn benn benn benn benn benn benn poste que ça soit ministre ou que ça soit directeur de hmm. euh, li nga xamante ne moom mooy liste parallèle yi dafa commencé di am euh, est-ce que nekkul loolu mën na affaiblir li nga xamante ne moom mooy benn bokk yaakaar bien sûr mbooloo mooy doole hmm. mbooloo mooy doole xam nga su fekkante ni euh, ci benn gox ñaari euh, leader ku ci da nga bay sawaar ñi waroon a ànd ak ñoom ñëpp dem voté leen dañuy tas. parce que su nekkente ne ñaari lu ci lu mu bon bon bon ku am na ñoo xamante ni ils te sont fidèles. dañuy ànd ak yow mais nag dina dem ba foo xamante ni bii. Euh, ku ci suñ ne élection yi kat tàmbali na ku ci ne da ngay dem sa demu bopp. alors ñu euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy côté côté Ziguinchor. Mm-hmm. Ablaye Balde gis ngeen. paraît-il que dafa waxtaan ak président Macky Sall li muy wax lënd bi mardi bi. moom la ñu moom la ñu décidé woon pour tabb ko. ginnaaw la Macky Sall wax Benoît Samb. mu wax def benn point de presse wax ni Macky Sall daf ko trahir noonu la ko waxee. ñu nii moom exclu exclurul. dem ak ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Sonko. àndam ak Sonko. est-ce que gis ngeen lu logique la wala. Mhm. Euh, li may njëkk a wax mooy xam naa nous ne sommes pas dans le secret des mhm. mooy lu njëkk li. Mhm. la mu waxanteeg président Macky Sall ñoom la concerné génn na daal nee na j'ai été trahi. ñii dañuy njort ne peut-être président Macky Sall daf ko diggoon ne ko mairie bi ñoom i neen la rek. mais li mu mun a wax mooy. noonu démb su nangoo tey pexe jeex. te noonu noonu euh, pexem noonu du mës a jeex. day jékki-jékki rek ba amaat bunt bi. tey suñu tabboon Abdoulaye Baldé. opposant numéro un bu Ousmane Sonko wala ka représenté Pastef foofu sa Ziguinchor dama jàpp ni ànd boobu du ànd bu war a mën a ne non du waral mu mën a ne parce que tey mais mais Abdoulaye Baldé dafa battre campagne contre Ousmane Sonko lors des élections présidentielles kon ce qui veut dire mënul nekk ànd boobu du ànd boo xam te bu ànd bu war a mën a ne la et man damay mettre en garde le président Ousmane Sonko mhm. euh, gis nga dafa am leen loo xam te ne daf ko incarné ñit ñi topp ko ci ñit ñi ànd ci ak moom ñit ñi gëm ko ci mooy ses fidèles partisans warul mun a def alliance boo xamante ni bii circonstance yi ñoom ñoo tax tey tey ab euh, Ablaye Balde su amul lu ko gënal du wax sax waxu xalaatu Ousmane ak ànd ak Ousmane Sonko au mm. contraire mm. day jéem a xool nu mu defee ba gagné Ousmane Sonko wala ka fa Ousmane Sonko di teg bokk wala kay représenté yeewi askan wi foofu book foofu sa Ziguinchor comme ni ñu ko waxee mais àndu Ousmane Sonko ak Abdoulaye Balde loolu du loo xamante ne sax war nañ koo xalaat waruñ ko sax di ko agité waruñ ko sax di ko agité loolu ce n'est même pas sujet d'actualité war na nekk ak ñoom la ñu wax def fii nii yëpp non Ousmane Sonko ay nitam sax ñoom yaakaaruñ sax def loolu ñee nag nañ koo véhiculer mais góoma ni ko def xalaatuñ en tout cas je pense je pense que arrangé wul état bi et d'ailleurs sax euh, ñu ngi dégg démb ci Cheikh Yérim mu koy wax ni ñoom euh, waa benn bokk yaakaar nguur gi ñu ngi waxtaan ak euh, Balde. def lu ñu mën pour mu bañ a ànd ak Sonko alors laaj bi ma bëgg a laajaat tamit mooy Sonko. déjà Balde mu ngi fort parce que 2019 ba léegi yow nga ñëw nii dangay ngay woote lu bees. ñu bëgg sénégal yi bëgg bëgg loolu également mooy ay njiit yu bees ñëwaat donc Sonko kan moo si perte pour yow Sonko rek moo si perte wala gisoo ni état bi tamit da pour Sonko ànd ak Abdoulaye Balde. waaw ah. Sonko ci perte. Sonko ci amul pour ànd ak Abdoulaye du tax du du du dafa dafa dafa dafa xam nga la laa bañ man. man je n'aime pas quand les gens. disent les quatre quoi. ah quand les gens disent non. la politique il ne faut jamais dire jamais. mais il y a des yoo xamante ni bii non c'est jamais. parce que tey mu ànd il y quatre mois cinq mois six mois de cela lu waaj wax nga teggi teg fee. mais mënoo toogaat ak moom encore 4 mois 5 mois ne da ngay ànd ak moom mais ana sensu ngor ana sensu éthique xam nga il ne faudrait pas que ñu véhiculer wala joxe image ku politique ni que ni waraatekat la wurit la jàppal ma jàpp yëfu fu la ak affaire non ni nit ki sooy dem pour def politique mooy da ngay apporter lu bees et Ousmane Sonko a amené quelque chose de nouveau raison pour laquelle dafa am la quasi totalité des jeunes parce que xam nga xale yi teen suñuy gëm da nga leen di tegal benn discours bu cohérent mais dem ànd jeeg Abdoulaye Baldé c' est de l' incohérence totale et jàpp naa ne Ousmane Sonko xalaatul def loolu sax et et tey Baldé su ñëwoon sax naa ko dañuy ànd ak moom Sonko dafa war a bañ Sonko mooy bañ mooy kii bañ ay nitu Sonko ñoom ñooy kii bañ amuñu pour ànd parce que tey les faits dañoo démontrer ni Abdoulaye Baldé suñ ko propulsé ko tegoon mu jiite la coalition Benno Bokk Yaakaar kon wax ji tey duñ ko wax. loolu mënut ta nekk à l'intervalle de 72 heures. Mhm. ñu bëgg a ne kat ñi day ànd ak Ousmane Sonko moo am a ci perdre. Mhm. moom moo ci perdre les gens dinañ ko bàyyi. Mhm. dañ koy mënuloo ne da ngay. yaa ngi indi discours bu bees la rupture mhm. dem di ànd ak ñoo xamante ne ñu ngi fi woon mhm. non loolu xel nangu ko sax te xam naa ni président Ousmane Sonko suñuy wax ay waxu ànd ak Balde ak affaire moom fu mu toog sax dafa war a nekk di ree mhm. parce que xam ne ni loolu c'est de c'est de c'est ba léegi yéen seen émission gisaak comme nu mu leen ko waxee woon ñu pré ñu fi invité mbay seen international dinañ waxtaan ci sport bi mais dañuy taxaw ci euh, politique bi ba léegi alors mbay président Macky Sall gis nga ni Ndakaaru dafa jël Abdoulaye Diouf Sarr ci kaw Amadou baax foofu tamit am na tuuti coow donte jox na ko coordonnateur régional bi. même maire bi sax joxu ko ko. mbay kii la ko jox. ki nekkoon PDS. tur bi mu may réer mais loolu jox ko de façon. li nga xamante ni ndakaaru bari ñu ngi ko doon xaar ci amadu baax diggante mag Macky Sall gisoo ni li ñu ko jox coordonnateur bi da koy dëfal rek quoi. bon da koy dëfal du ko dëfal c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est dire quelque chose boo xamante ne bi nii amuñ ci yenn garantie parce que ñoom ñoom yi neen xamante nañ xam nga dama jàpp ni ñun lu ñu renseigné renseigné président Macky Sall moo ñu gën a renseigné ñun ñëpp mhm. et Abdoulaye Diouf Sarr peut-être il am na ay atout mhm. comme ni Amadou Ba aussi amee ay atout te loolu comme Macky moom moo def choix man li may ñaan mooy yàlla nañ leen gañi ma li may ñaan. <laughs> mooy yàlla nañ leen gañ Ndakaaru man loolu laay ñaan. Mm-hmm. tey candidat moo xamante ne président Macky Sall teg na ko mu leer ni mu gën a am moins de chance pour gagner. Mm-hmm. damay applaudir mm-hmm. yàlla nañ leen gañ Ndakaaru man loolu laay ñaan. waaw yàlla nañ leen gañ Ndakaaru yàlla nañ leen gañ Ndakaaru. waaw yàlla nañ yàlla nañ leen gagné un mais mais partout sax mais mbay gagné leen Dakar est-ce que dina yomb xamul tax parce que euh, taxawu Ndakaaru ah hmm. yeewu askan bi gis nga ñoom ba paraît-il que si si xibaar yi ñu si mujjee am démb si guddi ba presque deux heures du matin ñu ngi fi nga xamante ne kër gàkku hmm. di waxtaan à ce que nu saxam saxam Wardini ak hmm. Barthélémy Dias kenn mën a bàyyi tegg tànkam pour euh, moom pour yow xëccoo boobu noonu est-ce que tamit du du du danger en quelque sorte wax naa ko fii waxaat naa ko fi te dinaa ko waxaat encore une fois la répétition elle est pédagogique. Mm-hmm. bés bu ñu àndulee. Mm-hmm. parti au pouvoir bi gagné leen. bës bu ñu àndee nag gagné. Mm-hmm. ak ku munti jiitu. ci ñoom je parle de l'opposition. nañ jéem a ànd. mais koo gis ñoom ñaar. Euh, man Barthélemy Diaz laa gis. ndax parce que il incarne la jeunesse. et et et soo dee seet discours bi nga xamante ne bii ni mu koy porté. c'est un discours boo xamante ni bii ndaw yi ñu ngi ci gis seen bopp mag ñi aussi ñu ngi ciy gis seen bopp. Mm-hmm. sama xalaatu bopp laa wax daal. Mm-hmm. moi je pense que ni euh, dakaar aurait plus. Mm-hmm. à gagner avec Barthélemy. parce que du may ñii régime bi ñu def li leen neex. il sera toujours au aguets. et il va montrer li nga xamante ni bii loolu moo tax. waa Dakar wóolu ko ba teg ko ci li nga xam te moom mooy à la tête de la mairie. pour man jàpp naa ni. si c'était un choix à faire. man choix bu may def man j'aurais choisi euh, Barthélémy Diaz. parce que nag su dul dara nag il a vraiment fait des choses. et gis nañ ni il est constant et combat bu mu doon xeex démb ak bërki démb Barthélémy mi ngi koy continuer di ko xeex ba tey. je ne rien contre nag. Euh, Soham Wardini non pas du tout. Euh, ku yiw la. Euh, mais man dama jàpp ni dama laaj sama choix pour man le choix à choisir mhm. si c'était moi c'était de choisir Barthélémy Dias à la tête de la euh, la de la coalition pour mu jiite élection yi pour euh, remporter éventuellement li nga xamante ne moom mooy la mairie de Dakar et d'ailleurs mooy commune bi nga xamante ni yéen presque moom ngeen bëgg a si say say say ñooñ moom ngeen bëgg a jël mi Dias ñu fàttali moom moo ko yar mooy Dakar Mermoz Euh, Sacré Cœur alors yow dañu gisoon da nga nekkoon candidat à la candidature de sa commune mais dañu gis ni après da nga renoncé wu lu tax bon c'est vrai que c'est une question que tout le monde me pose euh, li tax ma renoncé wu par rapport à la candidature xam nga dañoo am yéene pour suñu gox man kese mënuma porter combat bi man ak keneen mënuma porter mënuñoo porter combat bi quand on parle de commune rawatina commune Baobab mais moo Sacré Cœur il faut y aller avec une grande majorité et avec Zator, une très oui. grande coalition non Zator faruñu man ak moom Zator Zator Zator. xeex bi ko laa bëgg xeex bi abaa ah continent ci ñëw. <laughs> vas-y ne lañ eh. xam nga je que ni dina arrivé benn moment boo xamante ni yéen ñi nga xamante ni yéen bokk vision. Mm-hmm. da ngeen di toog waxtaan. et soo leen toogee waxtaan ku ci ne day jéem xool lu mu mun a apporter. Mm-hmm. ñu xool kan la ñuy mun a. jiital mu dem parce que suñu objectif c'est pas que man la rek man maa war a jiite non vous pouvez quatre cinq ngeen toog ngeen waxtaan ngeen trouver benn consensus ngeen nekkat écoute nii lañ bëgg doxalee suñu commune parce que suñ demee bay laaj mooy dañoo bëgg a defar mais su fekkee da nga ànd ak koo xamante ni am na yéene defar war ngeen mën a juboo war ngeen mën a juboo moo tax dama jàpp ni jarul non pourquoi nga retirer sa candidature non c'est le temps j'ai retiré ma candidature au profit d'une personne boo xamante ne jàpp naa ni muy njàkklaax mhm. jàpp naa ni mun na porter combat bi comme ni ma ko mun a porter mhm. et nag ñu àndandoo di liggéey muy suma mag mhm. ma jox ko cër respecté ko de par acte yi nga xamante ni bii posé na ko acte yi nga xamante ni mu ngi koy def et man ñàkkuma fayda tey tey nag am na mbooloo bu nekk suma gannaaw am na ay mag ay xale yoo xamante ni ñu ngi suma gannaaw et suñ demee ba jox ma baat ne ma mbay seen négocier ak koo xamante ne bi jàpp nga ni war na mun a indi leneen lu bees non franchement damay dem ànd ak moom mm-hmm. il faudrait que qu'on sache quelque chose c'est pas que da nga war a ne yow la rek mm-hmm. mooy yow yaa war a jiite déedéet man la budul man du baax budul man du baax non d'accord ma ci loolu et nag nos certains de nos dirigeants loolu la ñu jàpp mm-hmm. dañoo jàpp ne su dul ñoom rek du baax mais déedéet mais li nga am yow Ouzin ak man li ma am dañ koy boole teg dara mu jur lu gën a baax loolu mooy entente mooy coalition di tey tey tey tey bépp réew boo gis les élections maintenant sa gagnent en coalition xoolal États-Unis nu mu toll regarde États-Unis nu mu toll y a les républicains et les démocrates ñoom dañuy dem ay primaires mais ci primaires yooyu kenn ku ci ne ci ñoom mënoon ngaa mën a prétendre à a a à être président à même porter li nga xamante ne bi moom mooy sa parti que ce soit républicain ou démocrate mais dañuy def ay primaires mais ñooñu perdre ci primaires yi dañuy dem dooleel ki nga xam te ne moo gagné pour ñu dem jëli élection yi mais ñun yàlla dimbal nañu ba defuñu ay primaire mm. toog nañu waxtaan jàll comme ni ñu koy defee comme ni ko sunu maam doon defee amul ay deuxième tour ak amul affaire yooyu toog nañu waxtaan jàpp nañ ñi que ni le candidat la ñun ñëpp suñu àndee booloo war na mun a am dara mais dañuy ànd booloo jàppale ko na mun a am dara et je le redis encore une fois le candidat bi nga xamante ni jàpp nañ ñi war na mun a nekk à la tête de la commune incha allah au soir du 23 janvier. muy njàkklaax war na mun a apporter lu nouveau. ak ñun nag suñu jàppale. ak suñu expérience ak li nga xamante ni bii amoon nañ ko comme programme am mébét. pour jox ko mu a doxal li nga xamante ni moom mooy la commune de Baba Mbéne Mbour mhm. sacré gëm naa ne mun na ko mhm. maa la ko nu relancé sànq naa la Zator xam nga Zator AFP la bokk mhm. euh, ngeen war a xëccoo donc xëccoo boobu te nag bon il n'est pas n'importe qui ah yàgg na si politique bi am na expérience euh, voilà quoi en fait seen diggante ak moom xëccoo bi foofu est que jàpp nga dina yomb non xam nga man Zator suma mag la suma mbokk la je le dis su ma mag la suma mbokk la et on à travailler en 2014 mm -hmm. élection locale 2014 ñu àndoon. àndoon mais di nga dem ba benn moment dootoo leen bokk gis-gis. Mm. nga dem uti ci leneen moom mu dem uti ji leneen. Euh, dama gëm ni. Mm. Euh, ñun ñoo gën a mun a doxal liggéey bi au niveau de la commune de Baba mais mon Sacré-Cœur. waaw man loolu laa gëm dama gëm ni ñun suñu coalition. ji porté par Ndiaklaax moo gën a mun a doxal. li nga xamante ni moom mooy la commune de Booba mais mon Sacré-Cœur gis nga nii dañoo sonn ci ci politiciens yi ñoom yàgg yi ñoom dañoo sonn ci ñoom mm-hmm. wax nga ko léegi nee nga AFP mm-hmm. et pourtant ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar kenn xamul ñoom fu ñu bokk xam naa sax seeyal nañ seen parti ci biir Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom ñu ngi noonu rek ñoom ñu Macky Sall moo leen moo leen moo leen boo téye leen

muy parti yooyu noonu. lu mhm. leen jox sa jox ko mbokkam yi nga xamante ne ñun ñooy waa APR. Mhm. kon ça qui veut dire que ni ñoom kañ deseeru train dara Macky Sall moo leen porté rek président Macky Sall moo leen porté tey la ñoom xam nañ ko. Mhm. te suñu nuwaat ci li nga xamante ne moom mooy suñu commune ba. mooy dama gëm ni. et am yakkin bi am yaakaar bi. population bi am yaakaar bi am yakkin moo xam Mermoz Baobab Amitié Karak Sacré-Cœur un deux trois lu ñu jàpp. mooy gëm nit ñi njàkkalaax moo war a mun a porter suñu liggéey bu bees bi ak lu ñu xalaat gën a yokk suñu commune gën koo avancer ci kanam et comme candidat bi ma gëm ni moom la waxaat naa ko léegi te dinaa ko waxaat moom mooy njàkklaax <laughs> alors di nga di nga ko waxaana ah, certainement bu élection yi gën a jege parce que du ñàkk ñun Dakar ne dinañ def ay émission yoo xamante ni dafay dafay yëngut juste rek ci euh, wàccaayu élection yi candidat yi ku nekk war a mën a tànnal sa bopp internet yi pourquoi pas ñu fi invité ay mu nekk ay duel loolu dinañ si dinañ ko def te xam naa bu ñu ko defee euh, xëy na yow ñu indiwaat la wala njàkklaar si boppam ñu indi ko euh, sa caméraman il peut faire de la politique xam la politique c'est l'art de développer sa cité mm-hmm. soo gisee yenn yi yaa xam ni war nga mën a apporter ta pierre à l'édifice mais da nga ciy da nga da nga ciy apporter. Mhm. nous ne faisons pas de la politique pour se servir mhm. no mhm. ñu ngi servir su suñu gox. jëriñ gox bi te defaguñ politique. ñu ngi servir suñu gox te defaguñ politique. nous sommes dans les dans dans dañuy nekk ci. ci social bi social bi yow xam nga li may wax Ousseyn. et c'est pas maintenant lañ nekk social bi et mm-hmm. defuñ ko bien avant depuis 2012 ñu ngi social bi. Mm-hmm. les gens qui nous suivent dinañ ko xam. Mm-hmm. et on est un peu partout au Sénégal yemuñu rek. ci li nga xam te ne moom mooy euh, Sacré Cœur mm. que ce soit les rentrées scolaires que ce mm. soit tabaski korité euh, yeneen mm. Pâques ñu ci bu baax pour jàppale pour jàppale pour jàppale les citoyens ba pare nag di teg ay affaires que ce soit les orphelinats daara ñu xool naka lañ koy tabaxaatee dinañ ci euh, dinañ ci ñëw mbaya ah, ci loolu ñu gën yaatoo bo comme ni ma la wax kon on ne fait la politique rek <laughs> pour se servir mais c'est plutôt pour apporter suñu pierre à l'édifice pour la bonne marche aussi de notre commune et nag am nañ ci droit parce que foo dëkk pendant mm. am nga droit wax fa mm. merci beaucoup ça a été un plaisir euh, di ànd ak yéen mbokk internet mais également di dalal ki nga xamante ni ndaanaan la ci wàllu tàggat yaram d'ailleurs loolu moo tax ñu koy woowe Mbaye Sène l'international di kontaan également ci ñi nekkoon ci euh, xarala yi régie bi euh, ki nga xamante ni mooy Abdou Khadir mi nga xam ne daf ñu dab mais bisu également mi nga xamante ni donc dafa tawatoon ñëwaat ñëw en forme bisu kontaan naa bu baax a baax kontaan naa également Euh, mi ngi toog moom tamit euh, di seetaan kontaan également ci El Hadj bi nga xamante ni moo ne ma Ousan jëlal lakos bi nga dem def émission fa la nekk jàmm gën di sama frère lakos bu rafet bi moom moo ma ko jox xam naa numéro bi dinañ ko affiché ci baaru écran bi gars yi jaajëf dinañ jox rendez beneen émission beneen gise ak jaajëf